jàpp gi ñu jàpp Ousmane Sonko xañ ko jant bi moo gën a sedd ci liñ ko yéene kat yi Pape Alé Niang yi nga xamante ne yëkkati woon na ko ci benn live bu am solo boo xam ne wax na lu ni mel mooy Ousmane Sonko dafa rëcc sax ndax it ñoom lañu yéene ci moom lañ ko bëggal sax du ay tëj kaso moo ci gën a sedd kon nag dafa mel na ñii li leen jàpp kenn xamu ko ba tax na gis ngeen Cheikh Yérim Seck ñu bëri sax bugguñu ñuy def ci ñoom vidéo ñu bëri bugguñu ñu koy partagé mais dafay am ci jamono joo xam ne xeex bi nu ne lañ koy xeexe comme moom i tamit saay bu gisee ne Pastef jekku na Macky Sall dañuy gis ne dañ koy solal costume bu bees ni ko Cheikh Bara Ndiaye waxee waaye utal ko plateau bu bees moog Maïmouna Ndour Faye wala mu dem TFM ngir rek bëgg jàpp ne am na xam-xam pour dajji lu Ousmane Sonko maanaam sàmm te loolu tuuti na ci ci ci Cheikh Yérim na kàddu yi moko waxone ben candidat Pastef bu taxaw mobiliser force Pastef yep mën na gagner au premier tour. amul ben sondage Sénégal configuration politique fi bu Pastef am plus de 35% cinq pour cent amul ça n'existe pas. mbokki ñun ñëpp dégg nañ kàddu Cheikh Yérim Seck yi nga xamné kaddu yi muy yëkkati ak mu waxoon ak tey ji waroon na lool loolu nag miis nañ ko miin nañ ko ndax moom ci loolu rek lay dox lan lay lan la ko Pastef defa maanaam Pastef di projet boo xam ne Ousmane ko ak ñi mu àndal dañ koo teg ngir Sénégal jëm kanam ngir baadoole yi mën a gis seen bopp seen réew ngir sunu pétrole sunu or suñu zircon li ñu moomal suñu bopp ñun ci boppam ñu koy doxalal suñu bopp génne ci loxol France Cheikh mu bañ lànk mokk ñi nga xamante ne ñoo jiite nguur gi. waa benn bokk yàqal Sénégal taxaw temm képp koo xam te yaa ngi yeete wala yaa ngi wane yoon bu baax ngir Sénégal jëm kanam kooku nañ fexe ba faagaagal ko ci loolu la nekk mission ci la nekk moo tax da koy yërëm te jàpp naa ne képp ku bokk ak moom sax war nga ko yërëm wala war ngaa am ruusaay bu génnee di wax loo xam ne da ngay xam ne xale bi gën a tuuti xam ne li lii du dëgg